tamit suñu wax agenda gis nañ de plus en plus léegi nit ñi di songu gëm-gëmu jàmbur yow am na loo gëm yow la concerné waaye lan mooy yoon dem di wax ci gëm-gëmu jàmbur loolu tooñ la jàpp nañ ne agenda la tamit agenda la tamit suñu kilifa diine yi ñuy téye di jël lu ñaaw di ko teg seen kaw bëgg leen a tuuteel bëgg a fexe ba kenn dootu leen gëmati ku ne na gëm lu mu gëm su la neexee nga ne gëwuma kilifa diine su la neexee nga ne gëwuma diine bi waaye na yem si yow si sa gëm-gëm amoo pour tooñ borom moo tax ñun jàpp nañ lenn la ñu war a tabax suñu réew mooy barrière boobu dañ ko war a téye bu dëgër parce que suñu premier richesse suñu am-am bu mu njëkk. du pétrole bii de nga xamante ne ne nañ feeñ na du gaz bii de du or bële Sabodala de du carrière yii de du zircon bi de suñu jàmm suñu jàmm jàmm mooy suñu alal bu njëkk te jàmm nag dafay laaj yu mel noonu ñu dàq ko nu mu gën a gaawee moo tax jàpp nañ ne war nañ def réforme ci code de procédure pénale pour que képp koo xam ne jël nga baat jëmale ko ci gëm-gëmu jàmbur mu am lu ñuy wax autosaisine obligatoire du procureur de la république su boobaa procureur du xool ce n'est pas facultatif du xool ndax war naa autosaisir ou pas dafa war a autosaisir obligatoirement nga nekk ci benn diine attaqué diine jàmbur procureur dafa war a autosaisir nga jël sa kàddu jëmale ko ci kilifa diine walla kilifa aada walla ñoo xam ne moom la ñoom la ñuy représenté dañu war a autosaisir pour que loolu mu dañ ci réew mi ku si ne mën nga doxal nu mu la neexee waaye gëm-gëmu jàmbur nga bàyyi koog jàmbur jàpp nañ tamit que ne réew mi de plus en plus ñu ngi seetaan lu bëri xale yi maltraitance su xale yi nañ si wax si anam bu ne si fànn bu ne si kër yi si mbedd mi maltraitance su jigéen ñi nañ si wax si anam bu ne si fànn bu ne si kër yi si mbedd yi maltraitance su personnes yu am handicap dañ si wax si fànn yépp si kër yi si mbedd mi moo tax jàpp nañ ne war nañu gën a xoolaat peine yi yu jëm si ñoom parce que loolu lañuy wax ay personnes ko su dee da vulnérable dafa war a am ñu la war a aar tey soo àndeek sa rakk ngeen di dox su ko nit naree songu dangay ñëw jox ko sa bakkan loolu mooy vulnérabilité parce que moom dafa vulnérable su ko kooku songee da koy gaañ réew nag société mënul dox fii ak ñi am doole ñu ngi leen di bàyyi ñuy def lu leen neex moo tax ñooñu dañ leen war a défendre loolu bokk na ci débat yu ñu war a teg ci réew mi jàpp nañ tamit que lu jëm ci waa bitim réew muy ñoo xamante ne la ñuy wax émigré yi muy personne yoo xam ne foofu la ñu dëkk picc mu ngi ci kaw waaye xel maa ngi si suuf ñëpp xam nañ seen contribution si économie sénégalaise ñëpp xam nañ ne jafe-jafe yi ba muy am fii si réew mi su dul woon émigré yi làmbaay ñaaw waaye tey gis nañ ne extrémisme bi raciste bi racisme bi si réew yu bëri war na tax ba sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi si réew yooyu bëgg a ñëw te xam nañ ne suñu ñëwee parfois duñ leen di accueillir problème yi ñuy am si si suuf si problème yi ñuy am si tabax yi problème yi ñu am si yëpp tax na ba nga xamante ne ne duñu duñu bëgg ñëw waaye tamit dañu nekk nekk entre l'enclume du racisme de l'extrémisme et bi nga xam ne moo leen di xaar si si dëkk bi suñu fi ñëwee loolu nag dund googu dañ leen ko war a teggin moo tax jàpp nañ ne état Sénégal dafa war a def guichet unique aide au retour ñëpp ñoo xamante ne bëgg nañ ñëwaat ci seen réew parce que pour man tey su doon cotisation la ngay liggéey di cotiser xam nga kuy liggéey di cotiser soo retraité da ngay am pension de retraite xam ngeen loolu pour man ñu nekk ci bitim réew ñu ngi cotiser ci réew mi parce que ñu ngi dooleel kër yi ku dooleel kër yi jàppale état ku dooleel kër yi jàppale société donc ñoom ñu ngi cotisé moo tax état war na taxaw taxawaay boo xam ne ku bëgg a ñu xool par rapport ak projet yi nga war a am ñu jàppale la accompagner la soutenir la ba nga mën a ñëwaat sa réew nekk sa biir réew moo tax vraiment ñu jàpp na ne taxawaay boobu état war a am si ñoom dafa war a doon lu ñu war a imposer lu ñu war a xeex suñu taxawaay nag si baykat yi gis ngeen ñu def tournée chaque année dañ koy def année bële Covid bee taxoon defuñu ko mbay mii su paree gerte gi suñ koy jaay commercialisation bi lépp dañuy dem taxawu béykat yi dañuy dem ci éleveurs yi dañuy dem ci secteur informel bi xoolee nan la ñu toogee secteur privé national bi nga xamante ne ne suñuy wax secteur privé toujours secteur privé international bi la ñuy privé taxawaay bu war suñu seeni wet dinañ ko gën a accentuer moo tax ñun suñu priorité mooy Sénégalu jàmm Sénégalu sécurité Sénégal bi nga xam ne intérêt sénégalais yi peuple bi moom mooy féetewu kaw intérêt keneen soog a ñëw intérêt ku nekk bitim réew ngay président ngay lobby ngay ku mënti doon intérêt ku nekk ci biir réew mi ngay ku mënti doon sa intérêt su taxawee day suuf day nekk ci suufu intérêt Sénégal ñun loolu la ñu gëm si loolu la ñuy liggéey tous les jours moo tax loolu dafa laaj ñu xeex ko sans complexe sans faiblesse parce que politique ñun ñëpp incha allah ñun ñëpp dañuy dem yàlla na yéex luñ fi am dañ koy bàyyi alaa kulli àll mënoo ko yóbbaale kenn amul bàmmeel buy mën a dugal immeuble lenn rek moo ñu war mooy liggéeyal suñu askan ba ba ñu fiy jóge loolu nag dañ ci taxaw si lañ nekkoon barki démb si lañ nekkoon démb si lañ nekk tey si la ñuy nekk suba incha allah donc loolu laa si bëggoon wax si kàddu maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp jërëjëf.